Asta ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax dama sa présidence fii tey. waaw ñëw rek vraiment fekk si euh, agence bi fekk ah. si euh, Tata Kia. Hmm. ak waa Guédiawaye ñu bëggal leen daal. Ah, soo xoolee temps yëpp ñu ngi doon gis Prince Art nga bokk Prince Art wala. salut. <laughs> Asta. yes da ngaa Prince Art wala parce que gis yaa ngi yaa ngi quoi wala. damay liggéey ak ñoom vraiment ñu nekk ñu baax. Ah. <laughs> mën nekk euh, loo ñu mën a wax si waa PNSAR nga ne. waaw man maa ngi liggéey ak ñoom di remercier bu baax parce que vraiment ñu ngi jàpp si affaire bu baax a baax. waaw hmm. soo xoolee yaa ngi génne sa single euh, sa single euh, feew tere ak kii ak ay sa kone. yaa a wax single boobu. ci son bi ak Aïcha désolé <laughs> oh déjà on l'a fait. o oh my god I'm so sorry bon son bi ñu ngi koy def. oto bi fan la oto bi dafa oh my god ñu ngi koy def juste pour donner message. Ah. aux wax leen boole nañ booloo nekk benn. Hmm. parce que c' est que le Sénégal qui gagne voilà. c' est ça le message pardon ah, gis nga rek top été bi rek vraiment ah. fas yéene ñoo bégal waa waa Guédiawaye préparé sa fan maa ngi préparé lu rëy donc xaar leen ko ci année bi incha allah. balaa muy jeex euh, incha a est-ce que mën nañoo xaar euh, Astar meilleur artiste de l'année 2022. incha allah ñaanal leen ma rek doon leen ñaani. voilà ok